avant may tontu question bi euh, monsieur le ministre dafa am lu mu soulever lu am solo. Euh, wax na il a parlé de toute une économie souterraine en gestation euh, les filières de passeurs bi nga xam ni tey boo xoolee effectivement euh, xale yi et j'en profite aussi pour wax leen ni loolu nañ ko teg ci suuf parce que des gens se sont constitués comme on di parce que la situation éco politique du pays. Mm-hmm. Euh, xale yi xalaat ni suñu eggee Espagne avec les images la bi ñu doon génne Sénégal ils peuvent bénéficier du droit d'asile. c'est et ça c'est important euh, ma di wax ni euh, le Sénégal parce que le migrant sénégalais il est économique ce migrant là ne peut pas bénéficier du droit d'asile parce que Sénégal nekkul en guerre. ba tax na ñi leen di dugal loolu seen bopp ñu ngi leen di nax et c'est là où effectivement ma wax ni euh, euh, point boobu c'est important ñu koy soulever dans les plateaux mm maintenant pour la traque des passeurs effectivement mm -hmm. il faut lutter contre ñi nga xam ni tey je pense que c'est une exploitation de la dignité humaine parce que xale yi pour la plupart sont et ce voyage là n'est pas gratuit c'est des gens qui récoltent beaucoup d'argent en loolu rek créé woon na cette économie souterraine euh, plus de 10 milliards euh, d'euros ci àddina bi parce que dafa complexe am lépp nga ci biir y'a le trafic d'organes y'a lépp lépp lépp lépp ci biir donc c'est un dossier très complexe donc ba tax na effectivement il faut que xale yi xam parce que tey euh, tubaab yi tamit kenn mënatu leen nax mm. soo dans les pays pratiquement y a des traducteurs y a des sénégalais ñoo xam ni soo waxee rek ñu xam fa nga jógee. Mm. donc ces gens là gisoo pour la plupart dañ leen di dugal après ci ay santé on les retourne ba pare le sujet est très politique en Europe. les les identitaires se sont accaparés de ce dossier là euh, pour xeex moo tax dëkk bu mel ni Espagne wax naa ko gis nga élection yi am na bërki démb. Mm-hmm. donc pratiquement on craint que la droite. l'extrême droite euh, dirige le pays donc ñoom ñëpp dañ leen delloo su kon ko l'ex euh, droit le sénégalais mënu ko lenn rek la am. entre-temps sous-déposé le temps qu'on étudie il est sous protection subsidiaire loolu il faut état yi xam loolu pour protéger seeni doom euh, pour mu bañ a am expulsion mm-hmm. parce que euh, les accords de Dublin euh, bu ci at état yi accordé sax du am rapatriement sur le Sénégal mais nag généralement un rapatriement su amee rek am consensus il y a eu un accord bien que état yi duñ ko mën a wax parce que ça c'est source de tension mm-hmm. maintenant loolu c'était juste pour moom point bi mu wax loolu ñu ci ñu ko ci boole donc voilà il y a toute une économie souterraine en gestation alors moo indi jëy bi parce que en réalité ce voyage-là est très organisé. donc il y a un il y a un bateau il a quelqu'un qui cherche des clients gisoo. beaucoup de familles voilà beaucoup de familles m'ont appelé nga gis seen doom buy dem sax du lañ tàggu. dañuy toog ba chaque rek ñu ne maa ngi dem Dakar wala fekk na ñoom point de départ ba ña nga fa di xaar gaal gi kii ñu commencé yooyu yëpp aussi je crois que il faut renforcer la sensibilisation ouvrir un, une enquête comme il l'a ah, dit comme, comme, sur ce dossier là maintenant pour revenir à votre question effectivement euh, sur ce drame d'hier mais il faut que mu am une information judiciaire mm quelles sont les circonstances de ce drame. Mm-hmm. ñaata nit ñoo nekkoon ci gaal gi gaal gi fu mu jógee. ñaata nit ñoo ci dee ñaata nit il faut impérativement situer les responsables pour ñu xam. loolu moom il faut le faire. pour cela il faut une enquête. ah ben non impérativement ouvrir une information judiciaire. Mm-hmm. gaal ga fu mu jógee. kenn noo kii loolu yëpp ñaata nit a ci dee parce que jusqu'à présent gis nga nee nañu on a repêché combien vingt du dëgg ñi si des anañu il faut interroger les rescapés il y a eu des rescapés il faut les interroger ñaata fu ñu jóge bi ñuy départ ñaata li woon ces informations là mm-hmm. maintenant que l'État déclenche euh, euh, comme on appelle euh, une réunion ou bien je sais pas comment on peut l'appeler euh, amoon na fi bon moi je suis pour que ce problème là euh, ma jàpp ni c'est un drame national c'est une question nationale état bi c'est une question transversale état bi na ko régler wala mënu ko régler. waaw mais l' état l' état mais pas l' état. moom moom donc bien moom donc parce que parce que bu ñu waxee ni état bi mën na ko régler ñañee ñi taxaw famille taxaw déedéet moo tax man la c'est question nationale.